serigne bacho jere jeufati serigne bacho soxna Aida Saliou Thioune deug deug jëmmi sen bacho yalla na fi yag lol te wer ñoo ngi nuyu wa dara ji yeb te di si jiital ci nuyo bi oustaz mi nu fekk ci dara ji aw di beug lol tey contanat lol ci cadeau mi rafet yi mu yekati mom ma ngi babakar Diouf nekk médecin de formation euh, génne université Cheikh Anta Diop de Dakar di taalibe Soxna Aida bokk ci commission bi nga xam ni moom lañ tuddee nuuru daaree ni médical nga xam ni bokk na ci liggéey yim nu yim dénk ñuy topp daara yi di saytu wérgu yaramu ndongo yi waaw ndax kat ñaari at a ngi nii aljuma ju jot ñun commission médical bi dañuy constitué wu en équipe une équipe qui est de minimum

wala boog des médicaments de première nécessité nga xam ni moom euh, ay garab la yoo xam ni moom dina la mën a di ko mën a su di nga ci mën a suqandiku ngir fu la tawat mën a fekk muy euh, feebar bu ndaw nga xam ne garab yooyu dina la mën a soulager waaw te bokk na cax ci yi ñuy gën a yi ñuy gën a gis muy ay ay dermatose maanaam dañoo xam ndongo moom daa baaxoo euh, di nekk di foo ci ay suuf yu nu mel loolu nag day indi ay. feebar yu ñuy wax ay dermatose donc yooyu bokk na si nii gën a jël en charge waaw oustaz mi ngi koy wax léegi nga xam ni resement rek daara jii ñu nekk dafa amoon benn malade la boo xam ni dermatose la maanaam malaat la boo xam ne dafay toucher la peau ba noppi contagieuse waaw te maanaam wàllante bi doon lu doon lu gaaw lool te te te te mën a gaaw a répandre moom yàlla euh, def bi mu fi amee moom soxna si soxna ay Saliou moom yabal nu fi waaw bi ñu ñëwee.

Euh, pour tey jii nii man maa fi comme un médecin donc il faut que me xool nonga yi euh, euh, chercher les plaintes mën def sama diagnostic ba instaurer un traitement voilà pour li jëm ci garab yi aussi amna infirmier amna pharmacien bi bu fi nek ci équipe bi mom moy mooy saytu lépp lu jëm ci médicament yi voilà li jëm ci aussi play, yi nga xamni sa saa sa mu am ay traumatisme traumatisme moy manam ay gañu gañu wala nongoi dag donc loolu amna infirmier aussi. bo xamni ni moom moy and ak équipe bi chaque chaque tournée ngir taxaw ci lolu nga xamni ni daara yëpp dañ fay dem yobbu fa ay médicaments de première nécessité nga xamni euh, nit ces euh, conseillers nit ku nek moom ñett wër yu nek da nga wara a déparasité war rawate nag ay nongo nga xamni ñom dañuy fo ci souf sék waaw sa wo sa saytu gu war seen wër gu yaram ñom duñ ko xam ba di def waaw moo waral chaque 3 mois dañuy def le tour des daara déparasité nongay waaw donc li jëm ci wàllum médicaments yi mom mom non la tëralee nga xamni c'est toujours sous la supervision d'un médecin accompagné d'un pharmacien. jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio soxna Aïda Saliou suñu sang bu tedd bi bu gën bi yalla na fi yàgg loolu te ànd ak wér di bég bu baax ci téway bi di santat Serigne bu baax té ñaanat mu yàgg loolu te ànd ak wér jërëjëfati Serigne Béthio maa ngi tudd Soxna Abi Guèye nekk infirmière ah docteur leeral na lépp sax waaye dañuy ñëw ci wàllum pañ mi maanaam infirmerie garab yi nga xam eh, dañ koy andi pour pour pour ndongo yi ñi nga xam ne am eh, yenn feebar yi maanaam eh, olof naan ko waga wa ak ay góom. ay ay picc waaw ñu ngi fi andi woon ay ay ay andi andi woon fi ay alcool bi ak bétadine jaune bi euh, ak ay bande de gaz ak sparadrap ak ay euh, sparadrap bande ak coton ak euh, néomésine Oreo mesin eh, duñ ci leen sëriñ bi rek moo dimbalé sa su né rek moo dimbalé rek ci lépp barki sëriñ salim ñukay santat bu baaxa baax ci ci ci eh, ni muñu dimbalé bañu ba ñu bokk nuru daaree ni médical sëriñ Béthio jëfëti soxna Aïda Saliou sunu sang bi yalla fi yag lool te gëna wër aw mom ñi ngi ñaan ci barki sëriñ Béthio soxna Aïda sunu sang bi mu yag fi lool te gëna wër wér di nuyu wa daara ji ñu fekk si nuyu oustaz di tek nuyu ak sa loxo waaw di santat bu bax ci dal gi nu dalat sen bir waaw muy barab bo xamni min nango lol te sa yu nu fi ñewé waaw mom waaw ak ay ak yar ak teggin rek lañ fi gis waaw ak euh, dalal go xamni ni gonu neex la tax ñu ñemee len lol waaw nu ngi leen nuyu bu bax di nuyu wa dara ji yëpp waaw muy melni man la Momar ndjay waaw di agent de santé il yi de pharmacie je suis délégué médical de formation di membre tamit ci Nour médical gi nga xamni médecin ak képp ko xam day liggéey ci walum fajj ñom médecin ñu ci lekkolo ak ñom di ci liggéey ak ñom liggéey bo xamni mënul ñak ndax ay garab la kat waaw pharmacie am waaw ngir ñoom li ñuy soxla ñun ñu koy xam ñu xam ni période bii kat nangam moo xew feebar yi nii lay lépp li ci ëpp lii lay doon waaw ñoom ñu ciy jokkoo ak ñoom ngir di ci mën lii nga xam ni soxna si dénk nañu ko waaw ñuy mën a coordonné médicament yi. waaw dañ ko am coordination boo xam ne ci suñu njiitu ki nga xam ne moo yor wàllu pharmacie bi muy docteur Sëñ Khadim Diagne. waaw moom tey ñëwut comme ni ko jëwriñ waxee rek ensemble lañ boo xam ne waaw bari nañ loolu waaw te benn duñu ñaar duñu ñett waaw tey waaw taw sunu tawféex ñun ñu fekkee ko ñëw kuréel gi nag moom muy kuréelu médecin yi waaw daaw Daouda Seck moo ko jiite waaw moom féetee ba France ci jamono ñi ñu wax ak yéen am lu mu fay liggéey waaw kon dañuy ñëw présenté li nga xam dañ ko fiy indi waaw ak euh, ni ñuy def ngir conservation bi ba médicament yi du am benn jafe-jafe waaw nekk ci loxo yu mucc ayib te yuñ ko soxlaa mën a xam ni ñu koy jëlee waaw comme docteur wax na ci expliqué formation bi nga xam ne defal nañ ko ñenn ci daara yi ñu am laame ci nan la ñuy defee bu ñu gisee yenn yi kat bii kat docteur ne woon nii ak nii lañ koy defee kon ci li ñuy njëkkee mooy conservation bi waaw ci conservation bi waaw dañoo tàmbali woon amoon ay ay sachet waaye au fur du temps ñuy dem. ñu gën a xam ne liggéey bi kat waaw dafay gën a laaj concentration ndax di faj baax na lool waaye di faj ci anam yu gën waaw ci loolu waaw ñu def suñuy suñuy réunion def suñuy daje ba gis ni war na mën def kees boo xam ni waaw day doon keesu garab ñu koy bàyyi ci daara yi waaw am na ci yoo xam ni yi yu ñuul yi la am na ci yu weex am na ci yu maron waaw am na ci yoo xam ni croix bi vertul dafa rouge et cetera kon ci li nga xam moo jëm ci wàllu docteur wax na ko am na ay déparasitant waaw moom tamit dañ ciy indi en fonction ci ñi nga xam ni ñoo nekk si daara ji ni ñu toll garab la boo xam ne boo koy jël da nga ko de am na ñu koy def une semaine am na ñu koy def deux semaines moo jëm ci wàllu tamit wax na ci muy Itacold muy Nutracold waaw muy Naturex ba ak yenn yi nga xam ni saa wasaa ci daara ji dina am ay tànk am ñoom tamit bu ñu ñëwee waaw dañuy xool formule yi nga xam ne mooy formule siro yi waaw ñu prescrire leen ko waaye jëndal leen ko tamit indil leen ko waaw li ci jëm ci wàllum infirmerie bi tamit soxna Habib présenté na ko sànq muy coton esparadrap waaw bande de gaz waaw compresse Oreillumycine 3 pour cent bi bi nga xam ne moom la ñuy def ci góom ndax am na boo xam ne 1 pour cent la mooy dem ci bët waaw am na alcool bleu aussi waaw paracétamol bi mi ngi di garab boo xam ne mën naa ni Sénégal ñëpp miin na waaw kon daal noonu la demee waaw ndax ñoo tax ñu def nii kees gi da euh, garab yi nga xam ni ñoom lañuy ñuy fajee góom ak yi nga xam ni mooy doom yi ñuy naan kon ndax alcool bi mën naa tuuru am yi mu yàq din bi am mën na tuuru am yi mu yàq garab yi muy mel ni dañ ciy jot au plus tard les jeudis waaw teel koo defar départager ko xam ci yan daara lañuy ñuy dem waaw muy mel ni chaque vendredi au minimum dinañ def dix daara yoo xam ne ci benn zone bi ñuy aaye lay doon dañ koy wër xool ndongo yi saytu leen xool seen wér-gu-yaram waaw xool yenn anam yi waaw lépp lu ci jar tamit soppi dañ koy soppi waaw en fonction di li nga xam ne ñu ngi koy fekk waaw bu jotit bu ñu ñëwee ci daara dinañ xool li nga xam ne manqué na ci garab yi waaw bu mel ni paracétamol bi dafa wàññeeku ñu tegaat fi boîte bu bees garabu soj bi noonu yi nga xam ne dafa jëm ci pansement tamit fonction ni ñu koy utiliser waaw ñu koy renouveler waaw ñi wax tamit ci infirmerie bi waaw jëwrin Ndiim Gueye waaw moom moo ko jiite waaw moom moo jiite ñi nga xam ni ñooy infirmières yi ak infirmiers yi waaw ñu góor ñi ak jigéen ñi waaw docteur Babacar mi di coordonné ligue médecin man ma bokk ñi nga xam ne dañuy saytu li jëm ci wàllu garab yi muy pharmacie liggéey bi noonu la tëddee waaw ñu ciy santaat bu baax moom soxna Aida waaw ci tawféex gii mu nu defal ba booleen ci liggéeyam bi mu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waaw te nu koo yàgg ànd ak moom yàgg koo defal te ciy dam mbégam jërëjëfaat a Béthio bi xidmati